fire. mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen Baye Collé Laye gérante ba di wóyoo ci turu Collé Laye madame Mbaye nekke ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé Laye leen di defal leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escurely placage greffage wala ngeen seen i greffage bëgg bu dee yéen ngeen a bëgg greffage nag xeet bu mën di lekk greffage red frisé ba ci semi ondulé original bi ngeen fii fekk ngeen bëgg ay ngir defar seen i peñe yaa ngi fii accessoire yaa ngi fii ak mbooleem xeeti accessoire yi ngeen di soxla bu dee ay perruque ngeen soxla mbokk yi wala ay greffage am nañu ay boule perruque am ay importé ci longueur boo mën di bëgg ak couleur ci wàllu clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di fa fekk ay trois di fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a conseiller li gën ci yéen disponible 24 heures sur 24 ngeen mën ko woo ak jëm ci sa greffage rek ci yow kon nag fas yéen bàyyi kole lelaay ku ko seet si seet si sa njariñ. My baby got me for life, for saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekkaat fa coowal président Alioune Sarr coowal CNG coowal Mohamed Ndao Tyson ane kan mooy remplacer président Alioune Sarr ci bopp CNG bi amateur yaa ngi xëy di tabb ku nekk ci làmb ji jàpp ne am nga ci baat yaa ngi xëy di am koy tudd ku nekk ci làmb ji jàpp ne sa mbir nga ca yaa ngi xëy yaa ngi xëy di fësal sab candidat léegi làmb ji tollatul ci Alioune Sarr dana demam du dem mbooleem amateur yi jàpp nañ leen 31 octobre ñu ci àggee Alioune Sarr da leen di abal ci nekk di wër sa candidat di indi di teg li xew léegi nekkatul départu Alioune Sarr kan la ñuy tabb ci bopp CNG bi xew léegi ci lamb mooy sa diw candidat ya ñuy votel présenté leen bokk na ci Mohamed Ndao Tyson Kéba aussi candidat la ci mbir ma Mohamed Ndao Tyson moom gisagum nañ ko am na ñetti voix Bombardier bu mbuur moo fi génn ne Tyson mën na koo yor sa vote Tyson jos borom soosaat borom dóor dóoraat feelu ko ne sa vote tey sunu papa Double moo xëy na sa vote Tyson la gum ca maayik ca Mohamed Ndao Tyson da koo dawal mooy président Alioune Sarr mandaam jeexagul jógee gu fi balaa noo wax ci ki koy remplacer nañ bàyyi ba mandaam jeex ba mu dem ci la ko puus laaj ko ñu Mohamed Ndao Tyson ndax mën na koo yor wala déet mu ne leen bu dee Alioune jóge na fi bu dee Matar Ba am na confiance yi moom dëgg la moom mën na koo yor li ma bëggul kay mooy ñuy xëccoo ko xiiroo ko ŋaayoo ngir remplacer président Alioune Sarr waaye buñ ko tegee ci tekk ak tey rek lépp neex na ma journal jeexee ñu mbooleem ki war yëg ci lamb ji ñu yëgal la gannaaw saison bi le 31 octobre lay jeex foofee la ñu war a fixer ba ba ñu waxee loolu en septembre 2019 assemblée defoon nañu ko deuxième assemblée générale bi ñu ko envisager le 31 octobre ci boobee assemblée générale la ñu fas xaar bilan le directeur administratif ñu gën koo xam ñi njàmmi waaye bile assemblée générale bu amee la ca nar neex mooy dana mel ni élection Modou journal ba xamle ñoom ñetti cadre lansaar yooyu nga xam ne lu ne def nañ ko ci làmb ba ñu demee ba année blanche yi di tegaloo seen kaw dañoo dem ca Donald Trump fas yéene faa wutam xëy bu dee nes di fëgale di super étoile ñoom ñëpp problème adversaire la ñu am bu dee nes moom le avril la gëj bëre ca stade Demba Diop keroog ba ko Sa daanee ba léegi amaatugul adversaire bu dee super étoile samedi 20 janvier la gëj bëre foofee yi gisuñu ko dégguñu ko loolee moo waral journal bi xëy def jàngat bu yaatu ci seen diggante ñoom ñett beneen jàngat ba ñu def mooy bilaab écurie Grand Yoff mbooloo ci atum 2019 2020 bile écurie 6 def ñaari victoire la ci am ñetti défaite ak benn match ku wax Grand Yoff mbooloo wax Zarko wax Mobile 2 wax naan Sele Mele Ousmane Gandigal Zarko depuis le 12 mars ba ko Modou Anta daanee ba léegi gisaatuñu ko moom génn na réew mi mu nga ca Espagne naan boobee ba léegi moom Nandi Fall kenn gisu ko kenn déggu ko bu dee mobile de depuis tarxis ba mu tarxisoon te TFP ba léegi nii gisaatunu ko déggaatunu ko selémelee nga ca lit sans frappe ba kenn gisu ko ci brodeur bi moo fee seen ñaari victoire ba T-Max moo daan Ama bu Malika gaynde moo daan Baboy bu xam sa cosaan seen ñetti defet ya Unca bu Malika mbooloo moo daan naturel Elton bu parcelle mbooloo moo daan sergent bébé Diène bu Soumbédioune moo xaar jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen Baye Collé Laye gérante ba di wóyoo ci turu Collé ma madame Mbaye nekke ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé Laye da leen di defal leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escurely placage greffage wala ngeen bëgg sérum yi seen i greffage bëgg bu dee yéen ngeen a bëgg greffage nag ngir defar seen i peñe yaa ngi fii accessoire yaa ngi fii ak mbooleem xeeti accessoire yi ngeen di soxla bu dee ay perruque ngeen soxla mbokk yi wala ay greffage am nañu ay boule perruque am ay importé ci longueur boo mën di bëgg ak couleur boo mën di bëgg bu dee ci wàllu clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di fa fekk ay trois di ngeen fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen i bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a li gën ci yéen elle est disponible 24 heures sur 24 ngeen mën ko woo ak Kolle greffage rek ci yow la kon nag fas yéen bàyyi ko lelaay ku ko seet si seet si sa njariñ. My baby